tout d'abord sant yàlla bu baax a baax a si événement bi nii li mu dajale li ay ñu tedd rek ñoo fi ñëw euh, ñi si jiitu ñu presse bi tey presse bee xewle waaye dañuy wax ne tey jii tamit euh, sunu frère d'arme moo xewle parce que mar Chérif Ndaw ñoo demandoo armée euh, léegi su defee un livre bi nga xamante ne mu ci relate ay témoignages yu xaritam doomu ndeyam Amadou Lamine Mbaye man dam ci gisaat aussi à travers Amadou Lamine Mbaye témoignage yu man sama chef de section kinésithérapeute euh, Bokar Thiam euh, c'est un drépanocytaire SS mais il a retracé exactement la vie de Amadou Bokar Thiam à travers Amadou Lamine Mbaye donc moo taxoon mu doon satisfaction pour ñu ñëpp donc il a écrit ce livre pour rendre hommage à Amadou Lamine Mbaye mais à travers cet hommage là ñun ñu ngi si gis suñ bopp si hommage bu ñu rendre hommage encore un autre gars ki a qui s'est battu toute sa vie avec la vie avec la mort exactement professeur Sow ni mu ko relatee noonu la parce que ñi nga xam te ne tout le temps si souffrance la ñu nekk parce que avec déformation globule rouge yi toujours dana am demande d'oxygène bi nga xam te ne day am tout le temps ci ñi nga xam te ne ñoom am problème de réponse cellulaire bu bu eggali woon dundam lii Omar def ci moom tey dina def livre sëñ Babacar lool lu ma leer la wante nag loolu la Omar sentir ba jëfal ko ko mais nag lépp li may wax yëpp wax ji dama koy retourner si Omar parce que lu ñu ànd di nekk di nekk di nekk ba yàlla dogal digganteem ak sœur Lamine bi bi mu gaañoo mu ñëw dox tànk yu wóor ñu jox ko ko depuis loor ma nga ca kër ga mais jumelle yi ma ngay seet lu ñu manqué mi ngi seet lu ñu ñàkk mi ngi seet lu ñu bëgg man Omar xaw ma day mer moom it xaw ma nitu lan la parce que daal man jaaxal na ma benn façon laa ko gisee du mer. du dugg sul yoonam newul nitu jàmm la am na njëriñ am na jàmm Omar moom dama koy bàyyeeg yàlla parce que lii mu def man mun ma koo def sama doom xam naa santiment yi ñu am mais mun ma ko mun ma ko décrire mun ma ko bind mun ma ko wax si télé mun ma ko wax si rajo en plus nag waxuma la ak livre lii mu def nii maa ngi koy bàyyeeg yàlla doomam ji mu taaloo rakku Lamine tuddum tuddee ma ko jël tur bi teg ci Lamine maa ngi ñaan yàlla yàlla na xale bi toog ba bay teral baayam lu lu raw li ko li mu seqoon ak Lamine yàlla na ko turandoom bii defal barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Omar nit ku baax la mu nit ku baax la li ngeen koy gis nii man xam naa ko sama doom la yàgg na ca kër ga ci man la ne. loolu di rafetlu loolu seen teewaay fii di leen sant di leen gërëm ah parce que nit moom bu wootee euh, ay nit déplacé wu ñëw ñëw ñëw teewal ko dañ siy kontaan lool rawatina Sénégal. ku ne xam na ni fu mu jaar ak sama nijaay c'est une c'est une longue histoire donc kontaan nañ lool seen taxawaay gis nañ seen taxawaay depuis ba bi bi bi tiis gi dalee suñu kaw ba tey bàyyiwu leen boobu ba tey donc ñu ngi leen di remercier bu baax a baax encore une fois. waaw mais kontaan ci moom rek kontaan ci moom euh, di rafetlu lu mu def bu baax a baax a baax a baax defe naa ni moom itam amuñu fayam parce que bi affaire bi amee ba tey defe naa ni avant boobu ba tey sax moom bàyyiwuñu ginnaaw benn yoon. rawatina affaire bi am ba tey mu ñëw rendre ko hommage ku ne xam na ni ñoom ñaar seen diggante ni mu meloon ni mu woon ba tey moom mu ñëw bokk si famille bi ndaxte yaakaar naa ni rakku rakku rakku rakku Amadou lay sëyal donc bu bu defee lii def na lu ko war donc ñu koy sant di ko gërëm encore une fois bon journaliste boo xamante ne woon hors parce que defe naa ni doo ko dégg ci dara loo xamante ni lu ñàkk fayda la wala dara loo xamante ni luy sikkal journalisme la toujours mi ngi woon ci luy doxal ak luy jëmale intérêt dëkk bi donc mu nekkoon référence nekkoon koo xamante ni royukaay la woon te daf ma daf ma daf ma soutenir bu baax a baax wan ma yoon bi defe naa ne bi may doog a tàmbali mën naa ne presque plateforme yi ma am yëpp presque moom ko ubbil moom accompagner moom mu njëkk moom mu njëkk tiitreel euh, à la une moom mu njëkk defal lépp donc man tey bu ma yeggee ba fii mën naa ni grace grâce à moom am joué na ci part de responsabilité bu mag a mag donc ma koy ñaanal fi mu fi mu fi mu fi mu tëdd yàlla yàlla xaare ko àjjana waaw ndaxte ñun de ñun de tiituñu benn yoon ci moom waaw am nañ yaakaar bu baax a baax ci moom. ñi ngi nuyu ñi fi teew ñëpp di jéggalu ci kàddu yi yëkkati ànd ci ak suñu njaatige muy doyen Chérif Ndaw muy mbégte ci ñun di contentement ñu ànd ak moom bis bi bi nga xam ni da ci bind téere jagleel ko xaritam collègue am am mu jóge fi tey waaye mu jàngal ñu ci biir loolu ni kii ku bëggoon Serigne Babacar la Serigne Babacar si mooy kan xel yépp dem ci il bu sell boobu di ndar doomam wax ko ni di almaktum ne maa ngi gis koo xam ni doomi buur la bàyyeekoo ci il bi gën ci il yi gane fa àdduna ñu koy gis mu nekk ci bersoom muy doomi gaynde mu dem ba fi mu tollee ci ñaar fukki at am cëru donn ku toll ni Cheikh Ahmad Tidiane Chérif El Fatimi waaye góor googu kiy defoon wasilaam léppam harmonie la léppam cohérence la ndax kàddoom boo ko nattoon ci ay jéegoom mu idantik kàddoom boo ko nattoon ci ay observation mu identique kon may jox réponse li mbokk mi laajoon léegi ne fi mu tegoon Serigne Babacar kon am na preuve yu tangible ak raison yu plausible yu ko permettroon mu tànn comme guide Serigne Babacar Sy waaye mu fésal ci biir ouvrage am wane ni ndekete xaritoo bu dëggu du deñ ba mukk donte sax jamono dina toll foo xam ni yéen ñaar ñëpp ngeen di dund waaye du ngeen mën a daje te du tee xaritoo bi na fi donte léeg-léegi kenn jiitu ji ba fi moroom mi waaye na xarit bi dëggoo mooy feeñ après ndax nag l'homme est par essence immortel c'est philosophique ndax nit du dee day toxu lu tax nit du dee ci yàlla la jóge te yàlla du dee ndax yàlla waxoon ni fa ida sawaytuhu wa nafaxtu fihi min ruuxi nee na ba mu paree ci architecture jëmm nit bëgg nit dund nee na moom yàlla moo jëlee instrument buy dundal nit jëlee ko ci boppam branché ko nit pour nit mën a dund moo tax nit bu fi jógee lan moo tax ñu ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ci yàlla lañ jóge te ci moom la ñuy dellu kon kon dañuy dellu ci yàlla kon l'homme est par essence immortel kon loolu mooy li nga xam ne moom la doyen Chérif wane fii kon nag kàddu yi ñu ngi ciy jéggalu ndax kàddu euh, jaajëfal rek la woon Toujours dans ce caractère multidimensionnel, Petit aussi, par exemple, était ce combattant. Et là aussi, le, livre de, euh, le titre du livre l'illustre. Pourquoi je dis un combattant Parce que sa vie n'a pas été du tout facile à cause de sa maladie. Mais il le camouflait, malgré les douleurs, malgré les crises, malgré... Voilà. Il montrait à chaque fois, par exemple, euh, cette combativité. Il ne voulait pas, par exemple, qu'on dise que bon, tu es malade, etc., etc. Non, non. Il montrait qu'il était apte et il se battait avec la maladie. Et comme anecdote, à maintes aussi, il me l'a on s'appelle téléphone, boy Demou de Gain, le xew, malakal mawti set cinéma. Et pourquoi il le disait Il faisait allusion, il faisait allusion à ces sévère et récurrente qui souvent l'attaquait pendant la nuit et on l'acheminait à l'hôpital. Il avait fini par même démystifier la maladie, la mort, je veux dire. Il avait fini par la démystifier. Une fois, il m'a dit booy malaakal moom du ñëw na démb seet si ma ma ne ko bàyyi li ngay wax mu ne ma ah démb jaar na fi may waxtaan xeex moom bàyyi na ma. Pour montrer que c'était un battant, il s'est battu jusqu'à sa mort. Et ça aussi, c'est un exemple de, de bravo. Il a montré à travers sa maladie que la maladie et la mort sont deux situations ou bien deux choses différentes jotewuñu dara bu doon feebar walla mettit mooy rey nit moom demoon na bu yàgg. lan mooy feebar boobu xëy na ñu bëri xamuñu feebar boobu xam téere bi ñu ngi ko wax Lamine le combattant am na ñaari jàngoro yoo xam na ne. su ko yàlla ji tegee doomu aadama fow mu nekk combattant pour mun a dund benn bi mooy drépanocytose beneen bi mooy asthme ñaar yooyu ñaaru jàngoro yu metti la ndaxte ci ay crise lañ ñëwee te crise bu nekk soo fekkee borom di def crise boobu da nga koy yërëm parce que da ngay yaakaar ne xëy na keroog la yàlla di jël bakkanam tellement que méttit bi metti na su dee asthme day frenkulaay ci xëtër ci wàllu noyyi drépanocytose moom day dugg ci wàllu ñuy wax deret xam ngeen deret am na ñaari doom yu fa nekk yu am solo te tubaab di ko waxee globule blanc ak globule rouge globule blanc dafa nekk pour di ñu aar ba feebar bu ñëw daanaka globule blanc yi ñoo ñuy aar mais globule rouge dafa am ñaari cër li nga xam ne moom la ko yàlla sëdd te ci cër bu ci gën a ëpp solo bi mooy mooy yóbbu lu ñuy wax li oxygène moo ko yóbbu ci biir yaram wi ci biir cellules yi pour ñu mun a dund suñu munee dund rek mooy lu ñu noyyi li dugg na ba ci biir organes yi ba ci biir cellules yi ndaxte oxygène boobu mooy tax ba nit ki am énergie mooy tax ba lépp lu ñu lekk tamit ñu mën ko soppaleeku su amul oxygène ba parce que oxygène bi mooy mooy daanaka chaleur wu nit or drépano bi rouge boobu drépanocytose su ñëwee feebar la boo xam ne ñu ngi koy wax ci kàllaamu tubaab feebaru génétique maladie bi génétique maanaam feebar bu ñuy dolle la bu ñu wàllante la bu ñu euh, bu ñu bu ñuy donante la voilà feebar bu ñuy donante la du ñu ko wàllante dañ koy donante maanaam il faut sa papa walla sa yaay am ko pour yow nga am ko mais feebar boobu dafa doy waar lu tax doy waar parce que soo jëlee globule rouge am na yàlla nu mu ko tabaxee nu mu ko màndarge mais mun naa ko misaal ci lu mu gën a gaaw dafay mel ni cercle dafay mel ni cercle bi rouge bu baax bi day mel ni cercle bu baax soo gisee cercle rek noonu lay bi rouge bu baax noonu lay mel mais su dee am na drépanocytose day soppali bi rouge boobu du mel ni dafay mel ni dafay dafay mel ni lu ñuy wax silaama espèce su silaama lay doon moo tax ci wàllu France ci wàllu nas dañ koy wax faucille dañ koy wax dafay am mandarga boobu day day day day dëng courbé wu mel ni faucille or biir boobu bu muy dëng bi du tax mu mun a dox nu baax ci biir sidditu yaram yi parce que su nekkee cercle gis ngeen cercle soo ja amee sa bul mu nekk cercle soo ko bàyyee day day dox nu baax mais su nekkee loo xam ne ne dafa dafa dafa dëng dootu mun a dawee nu baax a baax or su dawetu nu baax a baax am na fenn foo xam ne ne foofu lay faral di toog ñeneen ñëw fekk ji ko foofu mooy lu ñuy wax li capillaire capillaire mooy ci fi nga xam ne fii ñaari sidit yi mi nga xam ne mii veines yi ak artères yi foofu la ñuy nekk di weccalante deret bu baax bi ak deret bu bon bi foofu la ñuy weccalante foofu lay ñëw toog foofu dafa mel ni espèce seddukaay seddukaay foofu la ñëw toog foofu frenkulaay foofu te su ko defee deret bi dootu wala wala ngaan baaxee te su wala ngaan lu baax nit ki day koy yëg ci yaramam day nekk ay métti yoo xam ne ci wàllu yax yi day metti ci wàllu yaram bi yëpp ay metti ci nit ki ci boppam ci wàllu sax euh, dundin euh, maanaam nu mu ko waree am kattan nu mu waree def croissance dootu am croissance boobu loolu moo tax drépanocytose bi nekk feebar boo xam ne bu metti metti la boo xam ne day am ay crise su crise yu ñëwee nit ki dootul ànd ak sagoom parce que métti bi dafay métti lu baax a baax yax yax metti mais métti mais drépanocytose boobu dafa am anam nu mu amee maanaam dañuy wax am na kenn koo xam ne dañ koy wax français da koy wax homozygote wala hétérozygote mooy am na koo xam ne ne du globule yëpp ay am mel noonu day am yenn ci globule yi dañ koy mel yee mais globule globule yi ci ëpp yi duñ ko mel moom la ñuy wax kii dafa am drépanocytose à un ba nga xam ne ne kooku dina mun a dund du yëg sax ne am na drépanocytose parce que globule blanc globule rouge yu mu am yi bëriwul yoo xam ne am nañu drépanocytose mais su àndeek jigéen yoo xam ne ñu ngi mu ngi mel ni moom soo watul doomam su ñëwee day am lu ñuy wax la forme homozygote parce que day am la forme SS mooy eh, globule rouge yu am yi euh, déformation yooyu day ëpp doole globule rouge yu amul yi déformation mooy tax ba dee feebar bi indi jafe-jafe ci wàllu kooku loolu moo tax tubaab yi ak ñu bëri di wax ne ki nga xam ne kii dafa am drépanocytose dafa war normalement balaa muy ànd ak ndaw si jigéen muy jigéen muy ku góor ki balaa muy mën a sëy na saytu ki nga xam ne ki moom lay sëyal su dee kookee nekkul drépanocytose ni moom su kookee nekkee drépanocytose ni moom dañ koy ñaan mu bañ a def sëy boobu parce su ko defee doomam yi ñooy gën a sonn ko moom parce que su dee moom benn trait la kee nekk benn trait seen doom dañu am doom yoo xam ne dañu nekk doomu SS te loolu day nekk jafe-jafe yi donc loolu su dee loolu euh, euh, euh, moo nekkoon ci Lamine mbay gis ngeen ne vraiment dafa nekkoon dund bu méttee métti mais loo gis rek su ko yàlla defee lu métti fii incha allah bi xëy na su demee fële yàlla dina ko def ci aljan yu gën a kawe yi parce que yàlla du la sonal fii sonal la fële te am nañu yaakaar ne euh, xëy na mu nga nekk ci firdaw si tey ci ci jamono yi ba tax ñuy gën di ko ñaanal te di gën di ñaanal tamit waajuram yi te di leen ne yàlla na leen yàlla dimbali ba ñu am xol bu ñu koy muñee parce que lu ñu wax lii fii ci Lamine lu ko xar bi wax fii ak lu Omar Chérif wax bi ci moom tamit won na ne te te di du ñoom rek ñoo ñàkk ñun ñëpp ñàkk xëy na su yàggoon fii dina amal askan bi njëriñ boo xam ne ne du weesu njëriñ ji ñuy wax ji tey jii donc maa ngi leen di gërëm di leen sant di bàyyi kàddu bi nag suñu pàpp moom it mu am ci lu mu ci sànni tuuti incha allahu rabbi merci. kilifa yi fi nekk yëpp mu bàyyi seen soxla ñëw. pour dédicace yi livre Omar ñi gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm Omar Chérif parce que tey li mu def c'est pour la postérité Lamine vivra éternellement avec nous euh, kon nag Omar mënuñu la defal dara di dee gërëm di la sant ak éditeur bi di gërëm ay xaritam aussi parce que depuis bi mu génnee àddina ba léegi yéen ñëpp yéen a ngi nemmeeku famille bi yéen ngi leen seet di leen toppatoo duma guddal nag di gërëm Dame Dieng directeuru leeral xaritam la woon boo daan def bu demee Màkka bu taxawee ci kaaba gi da koy ñaanal temps yi mu feebaree bu ko defee mu envoyé ko ko mu di ñu ko wan mu naan ni xool leen daam mu may ñaanal de tout temps da ko daan def di liggéey ak moom boo amee ay dossier yu sensible mu jox ko mu liggéey ko bi mu demee ba mu yàgg mu ne ko daam dama bëgg liggéey ak yow daam ne ko ñun ay patron de presse lañu yow li nga mën man mënuma ko tu es journaliste de talent donc fexeel nga ut fexeel nga créer sa entreprise de presse ma jàppale la li ñuy am nga am ko ndax mën nga ko am donc ci doon préparé di jënd matériel bi ndànk-ndànk ca la ko yàlla moome kon nag daam lim ko yéene woon euh, yaakaar naa ne euh, yéene ba yegg na parce que depuis lors aussi mu ngi nemmeeku famille bi di nemmeeku ay doomam di leen seet mënuma ci sori mënuma wax ci sama doom li ñu ci wax rek doy na Euh, li ñuy ñaan mooy ñu ngi leen di gërëm di leen sant yéen ñëpp di gërëm principalement l' éditeur et Omar Chérif di dellu si di leen remercier mënuñu ma mënu ma leen a fay yàlla moo leen di fay parce que c' est un travail de titan que vous avez fait donc euh, ñu ngi yemale kàddu gi fii di leen gërëm di leen sant salaamaaleykum wa rahmatullah. ko ñu moon dañuy ñëw gis naa leen fi. waaw am na ñu fi jógee un peu partout dans les régions xam nga donc yéen ñëw ku ci nekk daal maa ngi leen di nuyu seen tour ak seen sant te képp ku fi ñëw indi fi njàqare wala feebar lu mu mënti doon yàlla na ko yàlla saafara ci bés bi waaw yàlla na leen ko yàlla defal parce que man moom Lamine du ma wax ci moom du wax ci moom de parce que les gens ont tout dit. Euh, Thiaba kaay kaay du ma du wax ci Lamine quoi mais je vais juste donner un ñëwal kaay kaay kaay non kaay kaay indi non kaay lawul amul problème ñëwal ça va man euh, du ma hmm. rakku Lamine la sama soxna la kii sama doom la tur bi Fatou lamin la tudd yaayu Lamine ak lamin donc man awma lu may wax waaw yàlla neen yàlla bindal tiyaaba yéen ñëpp voilà